nekk ci wàccaayu màggal Touba gi maître Madické Niang yabal fi délégation ci comité d'organisation bu màggal gi ngir jàppale leen ci masque yi nga xam ne ñu ngi ko doon dajale ngir taalibe yi ci màggal gi maître Madické Niang jox comité d'organisation bi lu toll ci soixante-dix mille masques bi ñu agsee ñu jébbal ko Serigne siiru Mbacké Abdoul Khadr mi nga xam ne moo jiite comité d'organisation màggal gi. ba nga xamee ne sunu sëñ sëñ bu sëñ bi jox na ko ndigalul muy yëngatu rek ci askan wi ba léegi nee na amatul lenn lu muy xëy wala lenn lu muy gont lu dul liggéeyal sëñ Tuubaa nee na loolu dong dong dong la defati mooy li nga xam ne moom moo ko tax di noyyi te loolu rek lay ñaan yàgg fi ngir mën ko mën mën gën di ko mën a def di sàkku yi tamit ci loolu rek nga defal ko ñaan ba fu mu toll rek di jekku ndigalul sëñ bi nee na loolu dong nii moom lay moom lay xeeñtu di sant nag nee na di sant bu baax a baax a baax ki nga xam ne mooy sëñ Mouhamadou Mountakha ibnu sëñ Mouhamadul Bachir ibnu Khadima Rasoul ndax nee na moom yëg na ni ko barele loxo ci biir ay nawleem moom yëg na ne li mu ko seedeel néew na ay taalibe yoo xam ne yi sunu borom may na leen xéewal gu toll noonu kon loolu yemul rek ci di ko màggal rek waaye nee na ba géeru dundam day jàpp ne looloo gën a màgg ci li li ko defal moo tax euh, bi nga xamee ne lii sëñ bi joxe na ci ndigal mu sawar lool waaye gën a di sawar nag bi mu xamee ne ci sa loxo la koy teg yow mii nag mu gis fa nga ko teg nga xam ne mosul xàmmee ci seen jëflante masu ci xàmmee ba mu yoree responsabilité ak bi mu ko yorulee dafay mel ni sax ba mu ko yorulee nga ko gën a di fonk ne fi mu nekk ne ba nga xam ne ni yor na responsabilité kon loolu bu mu ñëwee noonu ma leeral ko euh, waxoon na itam Mbàkke euh, mu bu ma yegsee naa leeral ne ñii nga gis mu àndal li tax mu ànd ak ñoom bëggoon na mu leer rek ne ba ñu àndee it ca ci loo xam ne lii bokkaloon ak li muy yëngatu nii loolu sëñ Tuubaa rek a taxoon ñu ànd ca ba mu ko bàyyee nag ba ko ndigal li ne sëñ bi ne joxe ndigal bàyyi ko ñii mu àndal muy mbàkke mbàkke yi tey lañ ko gën a jàpp ndax sëñ Tuubaa lañ ko jàppee woon te sëñ Tuubaa la continuer di ko jàpp newoon na mu ñëwee itamit mu ma ma ci seen kanam ma gërëm leen ci turam ci jàpp gi ñu ko jàpp te sëñ tubaa tax li tax mu bëgg tey njabooti boppam gi rek fekke ko day bëgg leeral nit ñi ne tey Madické Niang taalibe bi rek moo ñëw di liggéeyal sëñam lii mu lii mu lii mu mu ci jublu sax ba xaw ko biral ndigal la ko jëfee ndax ndigal lañ ko dañ ko ne lu baax kat boo koy def biral ko ndax am ñu la ci roy loolu rek a tax mu jublu ci waaye ndigal bu doon moom kese day ñëw joxe ko te kenn du ko yëg mu dem waaye ndigal la ko teg loolu baat yooyu la waxoon ne bu ma ñëwee naa ko naa ko ñëw leeral fa kanam euh, mujjee ko nag euh, dollee sant nee na bu mu ñëw dollee sant li tax mu teg ko samay loxo newoon na mit ma leeral ko ne sëñ Tuubaa moo ñu boole woon ndax ñu bari buñ ñu gisee dañuy jàpp ànd ba ñu àndoon te nekkoon di liggéeyal réew mi ci beneen wet mais dafa bëgg nee na bu ñëwee naa leeral li tax mu teg ko seen loxo de bu ñëwee dafa ne la ñu boole woon ëttu sëñ Saaliw la jógee ko ci ci ndigalu sëñ Saaliw la ñu ànde woon loolu lay dundal fas yéene nag nee na dundal ko ba giiru dund man itamit ma fas yéene ko dundal sama giiru dund moo tax mu boole ma ci ba nee naa ànd ak doomam yii ma ñëw jébbal la liggéey bii loolu rek la waxoon ma ñëwee naa la ko leeral di la dollee sant cam ak bopp ndax xam naa fi nga xam ne moom nga nu teg ñun ñëpp ak jàppale gi ñu mës a jàppale euh, ëppoon na ba ñu yoree nguur gis nañ fa ñu féete woon ba léegi it ak ñu fa féete di ñaan sunu borom yàgg la fi lool yàggu ànd ak wër jërëjëf. ginnaaw bi Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khadir sant na bu baax a baax maître Madické Niang ci taxawaayam ak yitte ji nga xam ne def na ko ba mu déggee ne rek comité d'organisation bi yittewoo nañ lu toll ci juróomi millions yi masque mu indi fi lim boo xam ne moo ëppagum ci ñi nga xam ne ñoo jotee indi ay masque sëriñ bi nee na mi ngi nuyu mbokki taalibe yi fi teew yépp bàyyi ko ci maître Madické Niang ci njiital Mouhamadou njaay mii nga xam ne moo doon wax léegi ak mbooleem ñii mu àndal ñépp te ñu man cee tudd sëriñ Abo Mbàkke di lépp ci moom mii di nuyu itam sëriñ Modou Rokhaya mi nga xam ne moom ñoom ñoo ànd ak doomi boppam yi mu yebal ak ñi ci des ñépp bàyyiwul kenn sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax di nuyu itam Mouhamadou Diop mii ak bokki taaliba yépp di leen yóbbante ay cant ak ngërëm ci maître Madické Niang ci turu Cheikh Mouhamadul Muntaka moom mi nga xam ne moo santan lii taalibe yi te ñu jëfe ko jëfe jëf go jëfe goo xam ne kowe na njort ndax nee na lim bu nekk indi nañ ko fi waaye mu nee na biñ bimu da biñ ko fi tàmbalee indi ba léegi amul kenn koo xam ne mën na ko ci ci liñ fi indi ñi ci ëpp daal ci ñi ci gën a jàmbaare ci la bokk ndax juróom-ñaar fukki junniy masque bari na te moom la fi ma di indi te it daf koy def rek ngir jëmmi sëriñ Touba ngir xam ne itam ndigalul sëriñ Touba kenn waru ko caa jiitu nee na loolu nag bettul kenn ci moom ndax ku ko xam ku nekkit ci loolu rek nga ko mës a xam mooy Pastef akuk taalube ak bëgg sëriñ Touba ak sago yoon nee na lu mu amit ci loolu rek la ko amee moo taxit njabootu sëriñ Touba gépp itam mu amoon ci ñoom tawféex ndax mbooleem ku fi ma sa nekkal sëriñ Touba làq na sa ngërëm kon nag dañ koy ñaanal bu baax la ko Cheikh Mouhamadul Mountakha seereeloon daaw doy na sëkk ndax moo gën àdduna ak li ci biiram te ndigalul sëriñ tubaa kenn du ko def di ko réccu kon nag ngeen wax ko ne na xelam dal na yaakaaram dolliku te xam ne sëriñ Touba laa doon liggéeyal ba samay nawle raw ma nopp mosu koo dégg bët mosu caa tege kon nag nee na ñu ngi koy ñaanal bu baax ndax sëñ bi kat sañ-sañ bi mu am ci moom am na ko ci taalibe yépp kon bu ko ci tànnee wax ko loolu xam pastéefam ak taxawaayam moo ko waral. kon nag na xelam dal bu baax te njortam rafet te xam ne ki muy liggéeyal moom ñemewul bor dafa am pay te ku ko liggéeyal bu la fayee loo ko jëfaloon rek da ko xeeb kon sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp di sant mbokki taaliba yëpp itam di santaat maître Madické Niang di ñaan jëf ji mu def ngir sëriñ tubaa yàlla na ci dajeeg tawféex